بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه والداعين بدعوته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي لين دي نيو دي لين زيار دي لين دلال جام كي تورو كي سوس يونيفرسيتي دي رمضان بي موي شيخ سيد محمد المصطفى سي حفظه الله وأيده ورعاه nga xamne bes bi reyna ci mom reyaay bo xamne moo bëggoon a ñëwal boppam teewel ko boppam waaye xëy na ngànt dab ko ci diggante bi waaye teew na ndax cheikhu boppam soxna kinne si mi ngi teew feggoo ak sëriñ Mansour saar ñu fekkaat fi seeni mbokki bopp kon ay mbokk yu dalal ay mbokk lañ ndax yàlla ki war a def waxtaan bi tey dañ daan njëkk a présenté bi soga présenter ki waxtan waye tay dañuy ñëk a tudd kiy waxtaan soog wax ci thème bi mi waxtan ndax yàlla ak ni bés bi tollu tabarakallahu serigne Cheikh Ahmed Tidiane si ibnu Seydil Hadji malik si mawdo ibnu Alxaaji Abdul Aziz si ibnu Seydil Hadji malik si mo nar a si fekk si xaritam soppem cheikh Seyd Mouhamed al Moustapha si ibnu Seyd Cheikh Ahmed Tidiane si ibnu Cheikh al Khalifa Abi Bakrin si ibnu Seyd al Hadj Malick yaakaar naa ni loolu bu fa yemoon rek doy na sëkk sëriñ Cheikh ànd ak ay mbokki boppam sëriñ Babacar si bu suñu baay Hadj Malick si Maodo ànd ak sunu bajjan soxna Fatou Fatoumata si bu maam Habib si ànd ak it jigéenu boppam soxna umul xayr bu sëriñ Maodo ànd ak it sëriñ Habib si bu sëriñ Maodo ànd ak oustaz Ousmane Diaw ak maam Njoogu si ak sëriñ Pape Babacar Faye ñu fekkaat fi seen mbokk bopp sëriñ maam Ousmane si Seydil Jamil kon su ko defee dafa mel ne famille bi yëpp daje nañ fi ak suñ mbokk mi xaaj Muniru Si ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp tudd ñu leen te jataay bi ñoom ñoo ko moomal seen bopp sëriñ mu Faye ñi mu am ñëw nañu soxna Faati Mata Si Kinne di doomam sëriñ Cheikh Tidiane Si ñoom ñëpp ñu ngi fi kon yàlla yàlla mottali sëriñ Cheikh nag doomu Seydil Hadji malik Si Maodo la mu duppee ko sëriñ Cheikh te kuna ne xam serigne mawdo ak serigne Cheikh ciofel ga ba mbokk ga weesoo ci walu xam xam-xam li yahnika anna qad shahidna bi annakum mujaddidu hadha alqarn qarni fardun wa jami'u bam koy wax yagna mu melne nak ciofel goga mom la transféré ci cheikh mi mu dox digganteem ak serigne Moustapha waye it buñ koy tan ci dara ji it bu critère yu subjectif yoyu dàqoo amna yenen critère yu objectif ndax fi doomu daara yep jaar nak fa la jaar jang na ba ko mu dem Koweït jang fa dem Maroc ca université Mohammed 5. spécialisation mi ko def ci droit ak relation internationale mel li sëy ci Seydil Hadji Malick leer jitu ci deunam mu dem ci université yi gën kawe ci al alam al arabi genn fa ay diplôme buñ ko denké tém buy wax ci système politique islamique entre théorie et réalisation yaakaar nañ ne war nako mëna def li tax comité scientifique bi tan tém bobu nak moy l'islam dañ koy mettre toujours dans la box des accusés manam fi xafasul ittiham lañ koy lañ koy duggal bés bu nek te yàlla xam na ne am na ñu ko mën a defal plaidoirie yi te jàpp nañ ne moom mii ca la bokk moo tax nag mu war a waxtaan ci tëralinu politique ban gis-gis la ci lislaam am gis-gis boobu lan moo ko wuutaleeg yeneen gis-gisinu politique ak ku ko bëggoon a jëmmal ci jamono fan ngay jaar ba jëmmal ko ak yan ñooy gàllankoor yi nga xam ne ni ñoom ñoo taxaw actualité nag am na ñu nga gis lay xew ca Égypte ñu nga gis lay xew ca Tunisie ñu nga gis la nga xam ni mo xew ci libi gannaaw li ñu tuddé le printemps arabe ak monté bi nga xam régime islamique yi jël nañ ko le pouvoir ak épreuve yi nga xam ni mom lañuy jankontel yoy yépp cheikh inshallah allah dana ci ñew ci biir waxtanam damay wax nag ne toggantu dafay yaax ak ay te comme mom wajal na lo xamné inshallah allah bu ko yaké jox ñuko dañu doy seuk kon dañ koy jox kaddu gi diko wax marhaban donte sax mom moo ñuy dalal ndax mom mom kër gi kon nak ya cheikh fal tafaddal mashkuran wallahi yubarik wa yuwaffiq assalamu alaykum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأحباب أيتها الأخوات العزيزات المسلمات إنه لشرف عظيم لي أن أجلس على هذه المنصة للتحدث حول موضوع يسع الزمان والمكان لأن السياسة في نظر الإسلام ليست إلا تدبيرا لشؤون, لشؤون الخلق في حياتهم على هذه الأرض وفي تعاملهم وفي عهودهم ومواثيقهم الخاصة والعامة كل ذلك وضع له الإسلام ضوابط وشروطا ومناهج حث الإنسان حثا على أن يعمل وفق تلك الضوابط والمناهج فلأمر ما يقول سبحانه وتعالى لكل, لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا, فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ويقول أيضا لكل جعلنا منكم شيعة ومنهاجا من هنا كدت أتردد في اختيار الطريقة أو المدخل الذي يصلح لي أو يصلح لأن يكون منطلقي أو منطلقنا إن شئتم في السير بكم عبر هذا الموضوع الشائك وأكاد أقول الذي له خطوات جسيمة فالسياسة تعني الاعتدال وإرساء دعائم العدل الاجتماعي وتوفير وسائل الأمن والاستقرار في المجتمع أو في مجتمعاتنا القروية والمدنية حتى في أبسط قرية من القرى النائية عن الحاضرة فالإسلام جاء ليأخذ بيد الإنسان إلى ما فيه صلاحه وصلاح مجتمعه كأفراد وجماعات لذلك إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد الله سبحانه وتعالى يوجه الناس توجيها يكاد يكون توجيها واحدا حيث إنهم ناس يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم هذا في بداية عهده أو عهد نزول القرآن الكريم على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة لم يستعمل لفظ يا أيها الذين آمنوا ولكنه عمم الرسالة وعمم الدعوة إلى عبادة الله وحده دون إشراكه بغيره في العبادة ثم تطورت الأمور فأعطى لكل رسول شريعة خاصة بأمته يعملون على تطبيقها والعمل بها واحترامها حتى لا تضل بنا الأهواء والأطماع في أودية لا يخرج منها إلا من عصمه الله وتداركه بلطفه وتوفيقه وإذا جئنا إلى الإسلام نجد أنه يأمر الناس بالصدق وبمراعاة العهد وبالوفاء يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ويقول الرسول ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في جوامع كلمه إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء ويقول أيضا إن الإيمان بضعة وسبعون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وكأنه يريد صلى الله عليه وسلم أن يعلي قيمة الحياء في المجتمع بين الأفراد والجماعات حتى يكون الحياء طابعا يتميز به المسلم في سلوكه في أو, في سلوكه عن غيره لذلك يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وقال أيضا في مجال المعاملات وما يقع بين الناس من تظالم ومعاداة ومحاربة انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله نعرف كيف ننصر أخانا وهو ظالم كيف ننصر أخانا وهو مظلوم فكيف ننصره وهو ظالم قال أن تحجزه عن ظلمه فذلك نصرتكم إياه mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw ba ñu nuyoo ba noppi di jiital nag ci nuyoo bi suñu mag suñu sëriñ suñu soppe suñu xarit di almursidi ruuxi sayidi mahamadul moustapha si

mu melni kon suñu tem moy an nidaamu siyasi fi l islaam bayna nadarati wa tatbiq siyasa nak ci gis-gisu lislaam moy tëralin bu rafet bu tax nit di mucc ci société bu muy dund mo xam ci jëflante la mo xam ci ay convention la mo xam boole bo xamante ñaari nit la wala réew ak réew lu ci ne rek l'islam tëral na ci ay règles ak ligne de conduite bo xamanteni moy tax nit meuna mucc sauver liñ ko dénk muy amana bi ko yàlla jox motax yàlla wax ci alquran ne nation bu nek man yàlla subhanahu wa taala maa la jox terre bi ngay jaar pour meuna sauver li nga xamanteni moy sa mission tàmbali ko ci yonenti mu wax itam ci suuratul maida di wax sallallahu alayhi wasallam ne ko njiit bo gis bu la jitu rek muy yonant amna luma doxalon sama digeentou muy sharia bi nga xamanteni mom la wara appliquer ci bir xetam muy shira ak minhaj shira man nañ ko firé ay charte wala ay shurut yo xamanteni ay tëralin ay règle minhaj moy ligne de conduite ñaar yoy ci la nit mën téggu pour mën doxal li nga xamanteni mom la ko yàlla dénk mu melni rek ku jël yoonu suuf ni maa ngi jëm Europe moo xam itali sëñ Babacar ñu ngi bu baax walla nga jël yoonu ndox bi ni maa ngi dem France kii ne maa kii jël kii jël yoonu yoonu yoonu ndox ki jël yoonu suuf seen bëgg-bëgg ñoom ñaar mooy àgg France looluy manhaj moo tax thème bi vaste bi mu vaste ak yaatuwaay ak baat yi mu amee muxtalifa xaw naa changer thème bi ay yoon ci zaawiya yu bëree bëri bëri angle yu bëri pour xool nu ma koy traité ànd kooku yéen nag ñu bokk càmbar thème boobu ndax thème la boo xamante ni politique ci boppam jéego yi muy jéego dafa mel ni dafa commencé dépasser doomu adama te doomu aadama moo ko war a gérer te li mu ko war a gérer yonent bi sallallahu alayhi jàngal nañu ko danañ ci ñëw ndax politique. moy équilibre rek wala yamale ak samp ay kenn yo xamanteni day indi justice sociale ci bir pench ak lepp lo xamanteni da fay indi ak dal ak équilibre société bu meuna doon bu société nak al mujtama waxuñu rek buñ né mujtama société du capital bi waye ba ci région yi ba ci commune yi ku nekk war nga yëg responsabilité bi nga xamante ni moo la boole ci sa biir pénc nga gis ni lislaam dafa jël loxo doomu aadama di ko tette ci lu ci li ko yéwénal ci moom ci boppam d'abord ak liy yéwénal péncam ndax loolu mission nit ci kaw suuf kon dafa mel ni yàlla subhanahu wa taala dafa jël nit xeetu doomu aadama ci boppam boole leen benn sóobuwaay lu ko waral mooy sallallahu alayhi wa sallam ayat yi njëkk wàcc moom ci màkka alfaat yi mu daan jëfandikoo mooy kalimatu annaas yaa ayuha annaas ittaqu rabbakum yaa ayuha annaas ubudu rabbakum nit bàyyil xel ki la bind ki la fi indi nit jaamul ki la fi indi tey jëfandikoowul lafz mu'min pour wane ni yonent bi sallam ci boppam dafa doon lu njabootu yonent yépp ci biir shari'am loolu mooy wane ni kon message am dafa ëmb àdduna moom sallallahu alayhi wa jëme ci lan te ñoom ñëpp bokk ñu doon woote mooy wéetal yàlla bañ ko bokkaale yonent yëpp loolu la xëy na charaa yi mën na wuute waaye aqida bi benn la charia bi mën na wuti ndax nit la daganoon mën na daga yàlla mën na daganal dara ci yonent yàlla daawut ci jamonoom te su fekkee ni beneen yonent ñëw na mën na ko fa xaraamal waaye aqiida bi moom benn la mooy wétal yàlla du changé yàlla bëgg nag société yooyu yëpp ñu ñu lim respecté qawaid yooyu le yi nga xamante ni mustamadit min al kitaab wa sunna ñu topp ko ndax bañ a sànq seen bopp ndax léeg leen nit topp bakkanam ak tërenul xel ba dugg ci kàmb bu ko yàlla fekkew bu ko fa yàlla fekkul dimbali ko du ca génn moo tax bokk na ci lay taayul lay taayal ngëm ci doomu aadama mooy dëggu sëriñ Mansour mi ngi koy wax léegi ci biir nit dafa war a dëggu nit te dëggu mooy def ci nit mu am dignité du nekk li ñuy wax aqliyatul xatiya ni ñu koy waxee ci euh, science politique ku jóg rek nga topp ko pas-pasam dafa war a dëgër bu dëggu jiitoo kóllëre moo tax yàlla tagg jullit ñi wax wax seen melo ci fi sootul muminin wax ci nit ñu fonk kóllëre lañu ñu dëggu lañu yonent bi wax ni diine ju nekk am na jikko te jikko lislaam mooy kersa kon nga gis ni kersa fondement la ci jullit bi ci lépp loo xamante mi ngi koy def ci biir société ba ci jëm boppam mu ne kersa mooy jikkoy lislaam mu wax itam ba tey ne imaan juróom-ñaar fukki pàcc la ak lenn ba ca gën a kawe mooy baatu laa ilaha illallah bi nga xamante ni moo boole jullit ñépp te moo boole it Seydina Nuux ak Seydina Muhammad moo boole na Muusa ak Seydina Isa ñoom ñépp benn baat ba moo leen boole baatu laa ilaha illallah yonent bi ne moo ci gën a kawe moo ci nekk ca njobaxtal ga mu ne wa adnaaha bi ci gën a suufe te waxin la suufewul mooy imaatatul ada ani tariq mooy dindi lor ci bépp yoon boo xamante bul ne yoon bi sama yoon la rek naa ko na même yoon bi ngay jaar ak bi nga dul jaar la yemale maanaam lor daal ndax dafa am lor dafa am lu wax al ada am lu ñuy wax ad darar ba ci toog ci mbedd nit di romb ngay wax ci moom yaa koy lor te yëguloo ko loolu la Musaa salaam di wax ni julit bi war nako moytu mu ne nag wal haya'u kersa shubatun min al iman kersa gog may wax man Muhammad sallallahu alayhi wasallam len la ci bir ngëm kon day melni bu joge ci ngëm am na lu manke mu melni dafa bëgg valoriser kersa mom sallallahu alayhi wasallam ci bir société bi ndax nit bu amé kersa am na lu mu rusa def am na lu muy jomb jomb na faute ba pare mathalan ci exemple tour ci mbedd ولا نيو داجي ساي مباليت فك بن كانيفو بو غيس ريك خيب كو سي لول ييب من انواع الاذى مو بغا جوليت بي كيرسا نيك شعارم بون كوي خامي سي بي سوسيت بو مانا دوغ ميم بو دامون با شين صاح فو مانا بوك مجتمع بو مانا دوغ كيرسا وانا اندك يو بو لا خولي خامني امنا فو بوك موتاخ مو وخني كو سا كيرسا جيخ سيغ نغا داف لولا نيه مو وخيتام تي ليغا خامتاني موي boole nit ñi te nit mënul génn ci euh, société am ndax al insanu madaniyun bi tabaay nit kese kese moom rek mënul dund il faut mu jaxasoo ay mbokk nitam mu xam ni tooñ dana bari ci kaw suuf xëccoo dana bay mu ne maa ngi leen di ñaan yéen yéen samay compagnon yi ma yi ànd ak man dimbal leen seen mbokk bu tooñee ak buñ ko tooñee ñu ne ko bu tooñee buñ ko tooñee xam ne koy dimbalee waaye su fekkee ni nag mom mo togn muna ngeen teye katan ga yor di ci togn ngeen ne ko du ni lolou moy ndimbal bi ngeen ko wara dimbalé système politique nak dama préféré tambalé qabla biatati rasul salaa wasallam ndax bo indé an nizam asiyasi fi fil islam te dima yi jiitu waxulo ci day melni l'islam moko ñëkke ndax ñu bari dañuy wax ni duggu diiné ci bir lislaam zahira jadidala lu bees la lu xew lu julli ñu créé rek mais amul ah te siya euh, siyaasa dafa nekk loo xamante ne dafa jiitu lislaam parce que bu njëkkoon da ngay gis nit ñi même bu yonante wàccul sax daañu dajaloo ñoom seen biir gis góor gu leen doy ci seen pénc ñu wékk ko seen lépp mu yoral leen ko di leen wan yoonu njub lépp lu yiw mu jàppaleen ba ñu jot ko lépp luy safaan mu dimbaleen ba du leen ba leen dal waaye bilislaam ñëwee daf ko recadré waat li amoon valeur mu yokk ko rafetal ko li ñaawoon mu génnee ko ci moo tax sallallahu alayhi wasallam bi ñu ne ko kan kan kan laaj ko kan moo gën ci jamono ji bi lislaam ñëwee mu ne ki gënoon démb yonent bi nag ñëwul rek indi ay xalaat boppam waaye dafa am ay règle ak ay usul yu mu teural waye mi ngi ko jëlee ci alquran ak sunna moy mastaram kon ci kaw lolou ngay déggé ni amul benn société bo xamanteni ni mën na dund ci kaw suuf te li ñuy wax sécurité amuko wala li ñuy wax fadl munazaat maanaam li ñu koy waxé ci li ñuy li ñuy tuddee ci droit euh règlement euh des conflits taswitul munazaat ad duwaliya penc bu nek soxla nga politique te politique dañuy bañ waxtu bi dab ñu rek waye fi mu tambalé mi ngi tambalé ci yalla mo ñëk politique mom mu jël koori kooru malaika malaika yi jël jibril muy seen njiit lu muy tan njiit muy nek mu nek seen njiit pour top ndigal tax kon ndigal mënul ñak ci biir société moy politique nak bi yonent bi woté fukki at ak ñett sallallahu alayhi wasallam ci biir makkah ñi ko gëm néew lool taxul mu tal xare ñu bari dañuy wax da ngay leg leg le ci débat yi ñu neen islam dafa tàmbale ci tour deret mom terrorisme dedet al islam lam yabda bil harb wa inma bada bis silm l'islam li mu tàmbale moy jàmm mom la woté waye tambalé wul ci tour deret bi jihaad di ñëw dafa fekk sallallahu alayhi wasallam ñu tooñ ko ci façon ku tooñ bu ne mu muñ a muñ ba ba ma muñ gi mën nañ ne amul fu mu yem ci moom waaye am na fu mu yem ci biir saxaaba yi yàlla ne ko nag jot na sëkk nga war a wane sa courage physique ndax di la tooñ rek bés bu ne nga ne patt day nuru ak ragal jëlal sa yi nga yar ci yéeféer yi waaw loolu ci gàttal bi mu jàllee dangay gis ni amna tendance yu bari yu jottu gannaaw l'islam amna lo xamanteni julit yi ñoko tek seen bop amna lo xamanteni xamante ne biti leen bàyyi ndax système bo gis laajul xëccio waaw bu xëccio amé rek perturbation am bi jamono jallé ba aksi ci sahaba yi ak li xew seen digënté ñu jàng ko ni ñu reyee imam ali ak ni ñu reyee sayyidna uthman ridwanullahi alayhim ba ci sayyidna umar mu'tazila fi khawarij fi ñu xëccio yu xëccio yu metti bi ñu demee ba ci huitième siècle hégire imaam ibnul qayim dafa am lu mu seetlu mooy jumudul fuqaha fuqaha u jamonoom dafa amoon li ñuy wax immobilité mu leen bu leen dal wala inertie bu leen dal ba ñu yaakaar ni diine lépp julli la ak woor ak toog ci jàkk ji mais dafa boole ñaar diine dafa boole jàkk ak pénc موتخ يونس صلى الله عليه وسلم وخني ليس خيركم من ترك دنياه لآخرته ولا ولا من ولا لمن ترك آخرة الدنيا ولكن من جمع بينهما كي توك تي جاكا دي وير ديريك دي نافيل ريك نينو كوكو دو كين كي توك تي بينتي مي تام دي خولو ريك اوبل بينتي مي كوكو يت خامو ريسبونسابيلتي واي كي بولي نيار ييب داغي بولي دين اك جامونو نداخ ياو لي ياكو ري يوينال يو ان تانك دومو ادمه ان تانك خليفه يالا تي كاو سوف imaam ibnul nag dal ci fuqaha u jamonoom leen lii ngeen bàyyi muy fajwa bi càggante bi ci la umara yi xukkaam yi profité nag commencé dugal ay loi yoo xamante ni génn na lislaam donte amoon ay jullit dinañ ci ñëw ci kanam euh, loolu bi kon noonu lislaam yi gisee gis ni jullit ñi commencé nañu am benn faiblesse bu leen dugg ci seen diine ndax bëgg aduna ñu profité ci te amon nañu doolé bu ñëk amon nañu tamasuk wanti raami nidaamihim seen nidaam seen système dafa nekkon system bo xamanteni dafa dëppoo won ak jamono ñu dund ko yonent bi ci bopam diko pratiquer sen kanam ñuy gis waye biñu commencé nak ku netal sa bop ku net di yema kol kol sa barké bop ci la nonu islam yi jaar indi ben bat bu ñuy wax ci ci euh, فصلوا الدين عن الدولة ما نم نيكو كراي موي العلمانيون تلون لولو ميغي نيكا اوروب تي 16 سيكل بين علماء الاحرار ورجال الكنيسه ني نيك تي بي تي تاخاول دينه اك بوروم خام خام ني نيك تي مي تي بغا تيرل خات بوب بن كونفرونتاسيون دا فا ام سين ديغانتي ناخ دانيو ني جوتنا سك دينه ген يلب لوخو دينه تي بير سوسيتي بي jàppante am seen biir bu metti ci Europe ñu ne am na majal yoo xamante ni du ñu bàyyi diine di ko àtte ba ñu xaw ci dëppook ñoom loolu moo indi lu ñuy wax al almana al xaasa laïcisation ñu dem ba ci biir nga gis ni am na beneen principe boo xamante ni bëgg nañu ko ci dugal xëccoo bi bari siraax bi bari seen diggante ñu bëgg a far jeexitalu diine ñu indi beneen principe bu bokkul ak bi ñu indoon muy almana xaasa indi al almana al amma sécularisation ci loolu nag bu àndeek doole lislaam di commencé néew istimar bi tam dugg muy occident muy occident bi dugg ci biir dëkku julit ñi fexe ba jëmbat loolu ci seen xel ak ci seen xol muy lu doy waar mooy lan an al islaama دين لا دولة الإسلام دين لا دفع يم تيجا كجي أكتي سبير نجابات سبير كر نفع يم نين كدوند ما نام دال دنيو بعج ربط دوند دوما آدما تيكا وسوف دين تيمك برامم أك الله خير رك مو يم ف بكون تي سين أي مندر جي نخم دارن كتر ل ديكو وخي pour leur juliet ni الدين لله والوطن للجميع مو كلمة كلمة حق يراد بها باطل ويمكن ان تقلب ان تقلب على كل الوجوه بعد بوبو من نكو سوبني دي جوليتني واخني الدين لله والوطن لله دين يالا كوم موم بينتي مي يالا موم نوبال سوني بوب واي مالغري تو سا جوليتني امنا سي لو خامتاني دوغنا سين بير با بار انفيلتري نين لين دوغال تي نيوم اي افكار يو خامتاني كين خامول فمو بايكو مو سونال لين لول nga gis ni ci gàttal boo xoolee euh, les turcs Kamal Atatürk boobu ngeen dégg bi nga xamante ni moom moo moo dindi alxilaafa islamiya ci Turc en 1924 moom daf ko daf leen ko forcé jaral na ko mu tuur deret jaral na ko mu def lu ne ci peuple am pour rek ñu bàyyi attewal islam mu ànd ak nag baada taxtim alxilaafa al uthmaniya ñoom it leen ko teg téye Andalus nekk fa di ko ak xurtuba diko diko di gérer pendant 8 siècles di tiaxan di fo ñom arab yi ba ñu nangu ko seen loxo kon nga gis ni baat bobu islam siyasi dañ ko fabriquer mais islam siyasi amul islam politique amul l'islam bi am wala diine ji am moy bi nga xamanteni mom la yalla wax ci alquran ci sourate maida ayat 3 دي وخني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ديني في جيتون يب دين بما جوخ صلى الله عليه وسلم مو ندر كيب دين يب لغي مو موي انكان دين يب ندخ مو غنى كومبلي مو غنى مات خيوال بما لين ديك من يالا دفنا كتب القرآن فيك ينغي براتيكي ديكيس اي نجرين وايبا تاي تخل ñi nga xamante ni moom ñoom la ñu tudd allah diini yiin wala alxarb tàyyi bàyyiwuñu ñu indi ci seen ay rumuz wax ni arada allah lil islam an yakuna dinan wa arada bihi an-nas an yakuna siyasa yàlla dafa bëgg l'islam nek diine nit ñi bëgg ko def politique bo démé ci livre al islam as siyasi bu Mouhamed Saïd al Ashmawi di ko ci gis wax na ci lu bari page 7 suma jumul مصطلح بنك موي تيرم بي نك في سونو لن تي گستو يي گيس نانيو لي ا لي تي استاد عطيه بند واخ ني كي نيك جيفانديكو تيرم بوبو موي هتلر مانام باتو اسلام سياسي الاسلام بوليتيك هتلر دا فا داجيك مفتي فلسطين الشيخ امين الحسيني مونيكو من رجلوما جيف ndax xam naa fi may jaar ak ñoom ragaluma communiste ndax xam naa fi may jaar ak ñoom mais li ma ragal mooy islam siyasi islam politique nga gis ni kon ci man bokk sama setantal du ma du ma nekk à l'aise bu ma gisee baat boobu donte nag écrivain yu bari dañ koy bind di ko titrer seen ay livre islam siyasi islam siyasi ndax njuumte la am ñu wax ba tey tamit ne Cheikh Mouhamad Rida moo ko njëkk a utiliser te terme boobu waaye ak lu mën a xew rek ci réeré islam la sosoo islam siyasi ndax ñun l'islam bi ñu xam mooy bi nga xamante ne moo indi aqida pas-pas indi sharia waaw wuuteeg diine bi nga xamante ni moo wàccoon ci jamono yonte yàlla isa bi nga xamante ni ñoom dañ ci moom ci pas-pas lañ leen yemale al aqida rek ñoom dam nañ ci ba ni daa maa li qaysar li qaysar wa maa lillah lillah te ñun li ñu xam ci diine mooy anna qaysara wa ma li qaysar kulluhu lillahi alwahid alahad qaysar moomul qaysar bindul yàlla moo bind lépp César amul existé wul bu doon existé it nekkatu fi kon kii donn lépp moo bind lépp te moo sañ jëfandikoo jaam lu mu ko neexee kon inna al islaama diinun shaamil li kulli jawaanibil xayaa l'islam diine la boo xamante ni dafa ndar képp lépp sàgganewul dara فليس هناك إسلام سياسي أو اقتصادي أو إسلام فكري ولكن هو الإسلام من حيث جوهره ومن حيث مصادره ومقوماته هو إسلام القرآن والسنة ci signification mot politique politique bu ñu ko dee wax mooy nu nit di tëralee mbir ci penc wala ci boppam moom wala ci njabootam ba njariñ rek di am ak seet nu muy teggee lor mooy politique ulamaul garb ñoom ci istilaaxan dañ ko firi ni hiya fannu idaari al mujtamaat al insaniya la politique c'est l'art d'administrer les sociétés humaines ñoom loolu la ñu wax waaye ci sharia fi istilaax sharci doo gis benn baat ci alquran boo xamante ni دفت تود بوليتيك لفظا او حرفا في القران الكريم أم فيا لا السياسه في القران لا وصفا ولا فعلا نيوم ني نكون لولو الاسلام لمي واني كون داخ سين گستو مو مو مو مو تيرا تير نيوم نيوم نيوم نيوم نيوم اوكسيدانتو يي باسكو القران بتو كسه كسه ريك دو گيس لا تي بيرم ام ظاهر ام باطن موتاخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه daan wax ni laa taxtarru bi zawahiri nusuus waaw bu leen jël biti texte yi rek lu ngeen gis rek liir ko yàq noo ngeen appliqué déedéet dégg naa ci Seyd Cheikh Ahmad Tijani xafidahu llah wa raa muy wax ni boo boo consulter texte yi da ngay interroger phénomène yi n'est-ce pas la la xoon nga gis ni kon alquran dafa laaj dégg-dégg te ñoom liñ ne ñoom dañu wax ni alquran indul poli indiwul politique bàyyiwu ko xel te jox ko benn benn benn yitte te loolu nag mooy njuumte dëgg-dëgg waaye boo seetee xat laa yujadu lafdun ma fi alquran alkarim walakin maanaahu wa madmunuhu mabsuusun fihin waaw boo ko càmbaree ci biir daa gis ni alquran tudd na politique ba ci baatu aqida muy dogm nee nañu alquran indiwu ci dara waxu ci dara mais al imaanu bil malaikati pas-pas la amana rasul boko jange ba mu jeex li fa nek yeb rasul yi kan mo ci gis Seydina musa ko dund ak mom kan mo gis tawrat buñ koy wacce allah àllaaxee ku fa agagum ci ñun te yang ko gëm kon aqida la kon alquran indina aqida indina na pas-pas boo seetee sax al aqida hiya al mihwar al asasi al awwal wal asasi alladi taduru alayha ayatu alquran alkarim aqida dafa nekk cercle boo xamante ni bu fondamental boo xamante ni ci la ay alquran di dundee القران دونتي اندول باتو بوليتيك ان ان لو خامتاني جونجو نكو سي بير كلمه الملك باتو نغور ميغا خامتاني كوكو يور تي غاي تيرالي تي غاي دوخالي دولا يالا لا بو خامتاني داف لاكو دينك غا ورتي جارال يون غا ورتي جارال نيت ني يون قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء باتو ملك فوق سياسه لا بوليتيك لا باسكو نيغا خامي ني بوليتيك لا موي بو لاكو خلال سي عثمان لي موخني تؤتي الملك كلمه ايتاء كلمه رقيقه ايتاء بو جوخي سيرن شيخ لي مو تيهكو با نيهختو لا بوكو جيل نوكو دانكاي فوقاتي يالا بولا دينكي نا فوي لم لا دينك دوكو جيل رك يامتي داكاي فوقاتي موتاخ من وتنزع الملك ممن تشاء دغنا ياكارنا تي كورو داوي ولا داوجيك سوما جومول سيرن مصطفى دي وخني واخ فيريكو فيري بو دبوك جامانو mu ne yàlla bu la falee nga toog ci fi la fal au lieu nga doxal li mu la sant waaye ngay xool lu la samp yow ak lu la fa téye mu wàccee la nga gis ni alquran indi nañu ay façon yu bari asalib yu bari yoon yu bari ci baatu euh, loo xamante ni du politique waaye loolu lay junj ndax indi na nguur yoo xamante ni dafa leen tagg ak nguur yi nga xamanteni daf leena ngagn ak nguur yi nga xamanteni dañu tegoon seen nguur ci concertation ak ñi nga xamanteni ko teg ci istibdad ak siyasi yi alquran netteel nañu ci surat nisa mu buy wax ni faqad aatayna ala ibrahima alkitaba walxikmata wa aataynahu mulkan azima al mulku al azim loolu mooy ngàngu naay mooy nguur ku yàlla boole jox la ngay daf la ngay yonent daf la ngay buur kon bëgg na nga tëral ko boole na la ñaari mission kon baatu mulk foofu politique la ba ci yonent yàlla yusuf alladi naja rabba maada qaal rabbi qad aatatni min al mulk mulk foofu politique la dhul qarnayn bi ñuy dégg ci alquran bu ñu ko nettali ci suuratu kaaf nga xam ni nguuram yaatoo woon na penkook sow lépp muy àtte ba yàlla di ko nettali politique la بلقيس بن يوتاجي ميغا خامتاني جيجين لون دي دي دي بورو ملكة سبا بلقيس موم بيكو يونت يالا سليمان ووي مو دوغو سي دينه لومو داف دافا واخني قالت يا ايها الملك افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون دافا و اي سولداون بي نيو نيوي مودلن مان كات سليمان داف ما وو سي دينه mais du ma dugg ci lu ngeen yëgul nu may def ñoom liñ ko tontu am nañu kàttan am na ñu doole am nañu arme yow nag yaay seet nooy def loolu lay concertation mooy diisoo nit tamit dafay dimbali kilifaam Balqis noonu la delloo ci Souleymane dem tuub ànd ak moom ne aslamtu maa Souleymane waxul li Souleymane waaye maa Souleymane lillahi rabbil alamin nga gis ni kon alxuraan indi na façon yëpp yooyu nguur yooyu nga xamante si tene leen te lépp ba léegi ñuy jëfandikoo seen xalaat ndax moom Balxiis mi ngi tegoon nguuram ci concertation tegu ko woon ci li ñuy wax despotisme politique al istibdad as siyaasi nguur yi nga xamante nag alxuraan daf leen a ŋàññ duñ ci yàgg waaye dinañ ci nome ñaar muy euh, Namrud ak Firawna bi nga xamante ni moom siiw na lool ci alxuraan firawn moom nguuram daf ko tegoon ci istibdaad day fal buur léegi tàkkusaan mu romb la neexuloo ko mu wàccee la xeeti suba fal keneen ba pare nag bu ci yemoon sax waaye mujj gi mu pàcc pàccee xeetam bëggul ñu laale ber ay waaso ku nekk mu ne la fi nga war a yem bul bul jaxasoog ñii dam ba mbewte jàpp ko bi ko saxaara yi waxee ne ko ki nar a daaneel sa nguur ki la fi jëlee góor lay doon ci période bii lay dund lay la war a judd mu ne nañ rey góor ñëpp ku judd rek ñu rey la xam naa ni boobu moom parité doon na fa am solo ndax góor ñi mën a mucc waaye loolu yëpp alxuraan nettali ko lépp nag wund politique mais tuddul baatu siyaasa waaye li ñu wax yëpp fii ndax génn na politique génn ko kon alxuraan tudd na politique mu in tudd ko ci yeneen baat lu mel ni at tamkiin lu mel ni baatu al istixlaaf loolu yëpp politique lay wund te bu ñu demee ci sunna ci xadit bi saa sallam moom dafa tudd baatu siyaasa jële nañ ci xadit boo xamante ni rawaahu alcheykhaan an abi hurayrata radiallahu anhu qaal kaanat banu israil tasuusuhum al anbiyaa كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فماذا تأمرنا أو فما تأمرنا قال فوبعت الأول فالأول وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم من بنو اسرائيل يلا دران واتي اي wàcce ay yonent ñu leen daan tette di leen ñu indi keneen waaye soob na man muhammad may mujj yonant ci kaw suuf waaye nag dana am ay xulafa sama ginnaaw danañu bari saxaaba yi am ku ko ci laaj ne ko waa bu loolu bu ñu dabee jamono boobu nu ñuy def mu ne ku ñu tànn ba jaayanteeg moom jiital ko topp leen ci ginnaawam ndax balaa ngeen laaj yéen càmm gi seen njiit yee ya njëkk laaj ba noppi fa inna allaha saailuhum amma saraahum ndax ku ñu balaa ñuy laaj li nga sàmm yow la njëkk laaj yow mi yow mi nga xamante ni yaay njiit euh, mu mel ni nag taarifu euh, nidaam baatu nidaam nag système mi ngi jóge ci rek ci al istiqaama wala ittisaaq maanaam jub ak jubal jubal boo xamante ni dafay nekk ci benn voie te du nekk ñaar ba ñett ba ñeent wala tattabiu subul waaw du yoon boo xamante day am ay ñal la benn yoon la muy saatul mustaqim istilaaxan muy ay qawaacid yoo xamante ni alquran wala sur yoo xam ne alquran daf ko tëral pour nit war ci jaar ak ligne de conduite boo xam ne ci la war a ci la war a ndar kepp boppam bu fekkee ni lu lislaam tuddul la chara charan fuqaha yi war a toog daf ijtihaad génnee loolu pour génnee li nga xamante ni mooy yoon yi nga xamante ni moo dëppook li alquran bëgg nit ñi war ci jaar te bu ñu nee fuqaha nag moy borom xam-xamu fiqi yi xamanteni day seen xam-xam dafa màcc ci alquran ak sunna ak li nga xamanteni moy composant yi lu melni alim alimul usul ak yeneen ko yoon ndax batu fiq ñu bari dañ ko jappé ni moy ku jàng lakhdari wala ku jàng ashmawi ñëw tok ci radio bi di wax wala ci télé bi sama sama genre bi mais fiq du lolu fiq ëpp na loolu ëpp na rek mokal ay texte ñëw di ko tari bu fekkon ni loolu rek la yàlla dune ne sosam du wax ni man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi diin nimu amé amee fiqhul lisaan noonu la amé fiqhul qulub nit da fay jàng grammaire pour làmmiñam djub bañ def lahn ci limuy lak wala limuy wax mo xam français bi la mo xam anglais bi la mo xam arab bi la waye deg nak at tafaqu wut wuute باتي تي القران بو غيسه يالا نغي واخ سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده وخل لا تسمعون ولكن لا تفقهون تسبيحهم لو كون دا فا ملني التفقه لومير لا بو خمانتني يالا موكاي دوغال سي خولو نيت ني داف علم الاجتهاد نك نيغا خمانتني نيوم دنج كوي جانغ ديكو دي خوس سي تيكسي لول لا نيوي امي لولو نك لطيفه نورانيه لا بو خمانتني بو نيك سي خولو جامبي رغال يالا موكاي مايي kon ci kaw lolou ñu gis ni système bi dafa am ay melo am ay source amul ben société boh xamanteni ni lañu wala ñu yéfer té soxla wuñu siyaasi siyasi ñu teural seen biir mënuñ ci genn bu fekké ne ay nit ko teural seen xel lañ koy ak seen ay bànneexu bakkan té te lolou bu ko nit topé lim koy jural moy ay njumte yu bari mais bu fekkee ni système bi yàlla tëral la ñaari njariñ moo ci nekk njariñu àdduna ak njariñu alaaxira ndax masdar bi moo wóor muy alquran masdar yooyu nag ñaar la source yi muy alquran karim ak sunna ama nusu alquraniya fa xasbuna ayataani min surati nisa yàlla dafay wax ci surati nisa inna allaha yamurukum an tuaddu al amanat ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا موي وخات تي بدي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول في سورة النساء خطاب بنجك بي يالا منكو جملة تي ولاتي أك حكامي جمانو جي مناني موي نجيتي أك بريزيدان ba ci tamit ki nga xamante ne chef religieux day woote ba ami mbooloo wuti mbooloo ñu te nekk ci keppaaram war na xool ni muy nekkee ak ñoom ndax foofu yàlla li mu bëgg mooy xaakim bi na sàmm li ñuy wax amaana mooy kóolute confiance bi nga xamante nit ñi ko jox ñaareel bi mooy na am adaala mandute buy àtte na àtte ci dëgg ndax ki am yaakaar ci yow ba jox la léppam ni ko olof di waxe ne ku la abali bët fu neex fuko fuko fuko neex ngay xol mais ki la abal beut gisatul yow kay yay xol fi la neex yow waye ki la abal beut gisatul te moy suñu carte électeur yi boko xasse ba joxe jeexna bo xasse ba tan xana nga muñ rek benen élection mais jeexna waaw ndax ya ko abal sey beut mu doxalal la da ngay muñ nak waaw nga gis ni. إذا الأمانة سانك كولوتي أك ماندو تي بير بنت سانك كولوتي أك جستيس تي بير بنت مو ألاك ريو يو باري واو نا خمولو ني نيت من نبا جانيك جولي سخ واي مو ماندو خم نغا أوروبي لك لك جفن تيك نيو خمان تني لين ريم مولين مانك مولين ديسي موي أشهد أن لا إله إلا الله جوليت بي نك موم تي موم لا واتي مي لومبو داف بك تي دوغال ورتي waaw dige loo mënul wax loo dul def jaru ko waaw inna naam baada xaw ma nu mu ko waxatee baada inna naam ah naam inna naam baada laa faaxisatun fa bi laa fabda ida xifta nadam waaw inna naam baada laa faaxisatun fa bi laa fabda ida xifta nadam waaw nit ki li nga mënul bul tàmbali ne waaw mukk neel danaa ko seet ولا دنا جيم بكرة توفيق يالدي دي عندك يوم غدف لينا ورا دف يوم صلى الله عليه وسلم وخنا تي حديث مو وخني إذا ضيعت إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة أم نيوني فانتظر الساعة نيونكو وكيف إذاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة بونين دامي با ني سانك كونفيانس لي نان كولوتي xam leen ni li des seen digganteeg yow ma xiyam bareetul ñu ne ko waa kóolute ni ñu koy sànk ya rasulallah mu ne bu ñu demee ba jël mbir dénk ko ko ku ko yellawul amul qudra ala tanfir amul capacité yu mu ko téye du ci xam-xam du ci jikko neex na buur bi rek mu jël ko dénk ko mbiru askan wi ndax lan xaritam la ndax lan soppeem ndax lan ami d'enfance teguwul ci dëgg nee na fu ngeen ko gisee ci penc bu ngeen ko gis xam leen ni saa taxaw na xitaabu ñaareel bi ci aaya bi ndax ñaari aaya la inna allah ya'murukum ak yaa leen amanu xitaabu ñaareel bi moom pour ñi nga xamante ni li raayatil muminin la mooy ñi war ñiy topp war nañu topp seen njiit njiit si itam doo ko jiital ba nopp di ko fakkatal ak tamit perte pouvoir bu mu la tax a mer ba tax nga yow boo daanoo tey élection yoo xamante ni wax nañ ko ne diw gañe na boo pertee retiré wul boo amee ay xalaat dimbali ko ñi nga xamante ne ñoo jël pouvoir bi waaye daanu daanu dégg koo massa sax bëgg a jógaat campagneat dafay teel day indi rek sa mbaxloo ci biir pénc te sëriñ bi dafa wax ni réew mu mel ni Sénégal pëccëxoo aada pëccëxoo politik xaju fi waaw moo tax laay ji di wax ba tey nii bu ngeen amee njiit da nga leen topp leen seeni njiit waaye ci charte nag njiit bi bokk ci yéen maanaam bokk ci li ngeen bokk ngeen bokk li ngeen gëm muy lislaam mu ne bu fekkee da ngeen dem ba litige am seen biir na ngeen delloo loolu ci yàlla ak yonent bi maanaam mooy alquran ak sunna ndax yàlla moom noppi na wax na li muy wax yonent bi nee na al ballaxt ñu seede ko ne ko ballaxt kon moom wàcc na kon li fi des kay mooy sunna ak alquran mu melni kon théorie jeex pratique mo fi dess wala réaliser mo dess damay dégg sëriñ Ousmane mi ben waxtaan bu ñu bokkoon di waxtaan ak papa Mansour bu maam Abdoul Aziz ci Sacré Cœur sëriñ Ousmane wax lu am solo mu ne ñun dañu tam fu ñu toog di wax plan d'action plan d'action mais nañ bàyyi plan yi dem ci action yi nag waaw plan yi doyna na action nañu actionné léegi mu jeex waaw mooy tatbiq bi rek réalisation bi ñu wax rek ba tay gënul thème bi su fekkee ne loolu amul fo lay jur ci pénc waaw ci wàllu sunna bi nga xamante ne sallallahu sallam moom la ñu bàyyee muy assunna al qawliya wal fi'liya wa taqririya li yonent bi wax ñu dégg ko li yonent bi jëf ñu gis ko ak li nga xamante ni saxaab yi def na ko ci kanamam mu wéyal ko te xam nañ bu wér ni yonent sallallahu sallam ci boppam jonjoon na li ñuy wax politique moom def na politique moom moom ci boppam nek na président nek na chef de guerre bolé kook nek nabi wa rasul bolé kook nak mbiru aduna ci tas aqida pas-pas ak di firi alquran ci nit ñi di len leral ni ñu wara jamo sen borom ak ni ñu wara jëflante ak ni ñu wara yébeno sen bir ba taxna alquran wax ni ci sourate suma juumul lanaam ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء واو موم دال فيم لاي جيخنا لب ميغي تي بير القران واو كوتي اتي و دال تي مو دوي لا ديغا ام ليغا خامتاني بو تي تيغي سا تانك دو جوم تي بير لول يونس صلى الله عليه وسلم ليرال نتي لو بري بري بري تي حديث مو تي القران مو تي سنه تي والو معاملات جندك جاي جفلنتي مو خام تي والو سوق البضاعه ولا سوق العقود ولا تي في كونجيغال لومو دون ريك بايوكو ليراندا ليب كون بودي خول سونو رويو كاي دغ دغ دغ موي صلى الله عليه وسلم تي النظام السياسي في الاسلام نظام بي نك دافا ام نياري مبير يو تي نيك دافا ام اوبجيكتيف ام لو نيي واخ كوم لي كومبوزان اوبجيكتيفو سياسه موي يوينال دينه دابور ndax ci ci la ci la suñu mbir di ñoŋe ci la ñuy amee tedd nga ci la ñuy amee mucc ci la ñuy mën a yëwale suñu pénc moo tax wadaayat umal islaamiya dafa wuute ak yeneen umam yi ndax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi taamuruuna bil maarufi wa tanhawna anil munkar xayriyatu googu takmunu fi shay'ayn الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يلا سبحانه وتعالى دافو يونت بي نيكو سا خيت يوي نغن خيت مي جوخوما لنكو نون رك دي دافا ام فومو نيكون ما جيلي كو فا جوخ لنكو ندخ امنا خيت يو في نيكون يو خامتاني كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون فونو رومب لو بون دونو تري دنجكوي غنا يوك buñ leen ko waxee ñu fatt seen nopp moom daal na mon ngi tas rek yow nag sa xeet nag gis naa ni ñu bëgg lu baax lañu fu ñu romb lu bon daañu taxaw lijjanti ko ba faj ko fu ñu dig fu ñu fu ñu gis mbokk mu baax digal ko lu baax ba pare topp ca ñoom jiitu ca ñoom ñoom ñoom ñoom saxaab asxaabu rasul ñoom moo tax moo ñu may ñu nekk xayrul umma umar al-khattab radiyallahu taala anhu wax ni naxnu qawmun أعزنا الله بالإسلام مهما ابتغينا العزة من دونه أو بغيره أذلنا الله يلا مونيو ترى الإسلام بنج في بغي بنين تدنا بدو الإسلام يلا ترخل كومبوزان يوني وحنك بيتي جيتو موي توحيد باي خل يلا باسكو بوليتيك يلا موكو سانتاني kon ki koy doxal war na bayyi xel yalla ñi la denk buñ la tegul bëtt tamit yalla nga lay teg bëtt waaw te dara du ko rëcc té wax nañu sank ni bala euh, ñi ñu gouverner di layé ki njir bi mo ñëk layé ba noppi kon na bayyi xel ni yalla nga koy superviser ndax nit ñi ko de wolu ko wolu nit ñi wolu guñ ko wolu moo tax ñu denk ko kon tawhid am solo torop torop torop ci politique. gis ni yàlla mi ngi koy jang sallallahu alayhi wasallam diko wax ni qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirt wa ana awwal muslimin ci surat lanam nee leen dal sa jamu gi ngay jamu sa dundu ak sa de yow Seydina Muhammad ak li xew ci diggante bi lépp may borom kon nit ki war na bàyyi xel ni limay dundu parti politique bi moomu président bi moomu ko ba ci wajur du ko jur moomu ko lépp na ci bàyyi xel yàlla mu mel ni kon daf ko tënk ci ñaari mbir ak taabut wa biir jaamu ak ak tëralin bi nga xamante ni moom la yàlla bëgg ku ko jaamu nii système bi nag dafa ànd ak ay jagle jagle yi bari na waaye liñ ci tànn muy nekk lu am solo ci li ñu yaakaar muy arrabbaaniya wa shumuliya wal wasatiya الربانية يعني أن النظام رباني المصدر مصدر بي سورس بي سورس بي تي يالا لا باييكو موم نظام بي bi بي ndax bo xolé alquran amul tanaqut njiit yi jiitu woon seen téere yi rocc nañu lu leen neex dugal li leen neex alquran nag yàlla nee na moom maa koy sàmmal sama bopp loolu nag moo jaaxal yéeféer yi ak noonu lislaam yi parce que tawraat dañ ko dañ ko dañ ko falsifié injil dañ ko falsifié dafa am yahud yahud yu ñëw ci sallallahu alayhi ne ko dañu bëgg nga àtte nga àtteel ñu suñu mbokk mi ndax dafa njaaloo yonent bi na pat noppi waxul dara daba dem ba ci seen midras bi am ku benn chab bu mu fa gis laaj ko waxambaane boo xam ne juif la ne ko waaw Moussa alayhi alayhi salaatu wasalaam nu mu daan àtte nu mu daan àttee njaaloo mu ne ko